gan gi Déthié Faye mooy coordonnateur pôle des no alignés ñi féetewul ci opposition féetewuñu itam ci pouvoir ci digg bi la ñu ne ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay euh, Rewmi FM. di am mbégte dalal la ci matinal bi ci euh, Faye alors mm-hmm. yéen a ngi participer ci dialogue bi président Macky Sall sumb fanweeri fan ak benn weeru mais ba léegi gannaaw fukki fan ak juróom yu ngeen waxtaan ana lu ñu mën a jàpp ci dialogue bi. waaw ñu ngi ci dialogue national bi dialogue national moom askan bi réew mi a ko bokk du dialogue Macky Sall. Hmm. du dialogue keneen euh, bi ñu tàmbalee ak léegi nag mën nañu jàpp ne euh, commission yëpp euh, yu taxaw ñu ngi liggéey di xool nag la ñu mën a barale seen loxo. Hmm. ngir mën a yeggale seen liñ leen sax fii ak ba diir biñ leen may di jeex. Hmm. Euh, loolu ci la ñu nekk euh, ñu ngi am yaakaar tam ne liggéey bi bari na yaatu na waaye euh, yàlla mën na def bala délai vingt cinq juin bi di jot fekk liggéey bi di ci ëpp solo pare na. alors euh, liggéey booba àllarba yéen a ngi ko tënk ci parrainage ngeen wax sax ba jàpp ni tey mën nañoo gën a def ay jéego dem ci parrainage des élus maanaam ñi ñu tabb ñu mën a parrainer ñoo xam ne dañoo bëgg a dem ci élection euh, fan la xalaat booba jógee ak lan lay soppi ci parrainage bi ci réew mi waaw noonu waa Pôle des non-alignés day bokk nañ ci ñi nga xam ne euh, bi ñuy waxtaan wax nañu leen ne Euh, mission d'audit ñu doon euh, ñëw di saytu suñu processus électoral bi bokkoon na ci digle yi ñu joxoon ñu xalaat naka lañu ñu mën a defee ba ci parenage bi ñi nga xam ne dañ leen a fal muy ay député wala muy ay conseiller mhm. euh, mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy parrainé loolu nag bi ñu ko waxee beneen yeneen kuréel lu mel ni opposition lu mel ni société civile aussi wax nañu lu mel noonu ba tax na ñu ngi xalaat Euh, naka la ñu mën a doxale loolu ba nga xam ne dinañ mën a wax ne fu mu neex nga dem ci citoyens yi euh, wut foofu parenage mm. waaye fu mu neex itam bu fekkee ne mën ngaa am lim sàngam ci ay député euh, lim boobu mën na laa pare parrainer wala beneen lim boo xam ne xëy na dinañ ci déggoo ci ay conseillers boo ko amee itam ñooñu mën nañ laa pare parrainer te bu fekkee ne loolu am nga ko kon dootu soxla nga dem ci citoyen hmm. pour di def beneen parrainage. kon mën nañoo jàpp ne mën naa doon yoon bu gën a yomb ci am parrainage. mu ngi aju rek ci euh, nit ki naka la mën a mobiliser ba am li mu député boobu wala limu mu conseiller boobu hmm. waaye day ay ay ay yeneeni yoon yoo xam ne ubbi nañ ko ba nga xam ne boo ñëwee ba ci euh, tànn ju jot. da nga naan yoon wi laa jël wala wi wala wala. Hmm. donc euh, yoon yooyu nga xam ne moom yoon yu bees yooyu ñu ubbi euh, dafay tax euh, mu gën a yombal. Hmm. wala en tout cas dina wàññi jafe-jafe yi nga xam ne. moom la ñu doon gis ci pare parrainage citoyen bi bu fekkee ne ñëpp ñëpp ñëpp ci parrainage boobu rek la ñu jëm. Hmm. ndax loolu lim doon jur mooy li tubaab wax doublon maanaam nit ci parrainé ñaar wala ñetti ñetti candidat ba nga xam ne candidat bu njëkk bi bu ñu nee ay pare baax na rek beneen candidat bi ci tegu bu fekkee ne mm, am na ci listam ñoo xam ne pare parrainé nañu ki jàll léegi kooku daanaka mën nañ koo dàq. te mhm. eh, bu fekkee ne nag am nañu possibilité pour nga bañ a jaar foofu ndax dem ci ñi ñu fal rek. loolu itam buntu bu am am buntu am am solo la ci démocratie. Mhm. alors parrainage citoyen bi itam euh, mbébét ngeen indi ay coppite ci loi bi ko euh, tëral euh, lan ngeen proposé pour que ñu changé ko ci parrainage beeg ni muy doxee. waaw ñun de au niveau du pôle de des donneurs li ñu proposé mooy benn pour pourcentage bi nga xam ne moom la ñuy laaj nañ ko wàññi. jële ko zéro huit virgule zéro huit pour cent euh, yo indi ko euh, bu bëree ba bëri zéro virgule cinq pour cent euh, wax nañu itam ne bu ñu sañoon bi nga xam ne foofu lañu nattukaay bi ñuy jël du doon lim bi nga xam ne moo nekk ci kayit ne ñii ñëpp bind nañu pour mën a wote ndax ci biir ñooñu am na ñoo xam ne gaañu nañu am na ñoo xam ne nekkatuñu fii am na ñoo xam ne jotuñu sax seen carte. Hmm. ñu wax ne kon bu fekkee ne dañuy foo xool fan la ñuy wéeru pour nat ñaata la nit ki war a joxe dañoo war a xool ñaata ñoo woote ci élection bi passé nga xam ne foofu lañ koy natte ñu wax ne nangam moo woote woon ci élection bi passé kon ku bëgg parrainage ci nangam boobu par exemple da nga am zero virgule cinq pour cent wala zero virgule huit pour cent. Hmm. loolu bu ñu ko defee itam dana tax euh, lim bi ñuy laaj ci parrainage bi wàññeeku bu baax a baax. Hmm. alors euh, wàllu contrôle parrainage bi itam problème la ndax mille 2019 ñu bëri éliminer woon nañ leen te dégg nañu même hmm. société civile bi ñu ne ñoom maîtriser wuñu logiciel bi nga xam ne moom la ñuy contrôler est-ce que am ngeen solution wala yaakaar ngeen solution ci boobu problème aussi. bon dañ ko yaakaar ndax euh, ñu ngi waxtaan te ñëpp d'accord nañu ne euh, ni ñu doon ni ñuy controler euh, parrainage bi moom il faut que ñu seetaat ko il faut que ñu changer ko. loolu moom euh, kuréel euh, kuréel yi fi nekk yëpp d'accord nañ ci loolu léegi nag changement yooyu naka lay deme ak ban portée lay am ci la ñuy waxtaan mais changement bi moom mënta mënta ñàkk ndax ñëpp d'accord nañu ne euh, système contrôle ni ñu pare naa bi ñëpp nangu nañ ne baaxul am na ay faible am na ay am na ay faiblesse yu yu bëree bëri waaw. Hmm. Hmm. alors ñu euh, euh, jàpp itam ne euh, parenage bi CEDEAO aaye woon na ko ñu bëri hmm. gisoon ne xëy na Sénégal dafa waroon a jëm ci yoonu dindi fi parenage bi waaye yéen ngeen jël yoonu fexe ko gën a ñoŋal ngir mën ko appliquer pourquoi woowu leen état mu sàmmonte ak li CEDEAO dogal ci ci parrainage bi. waaw xam nga xam nga nit ñi dañuy wax mais CEDEAO dafa am xayma yu mu def. dafa jàpp ne bu fekkee ne da laaj nit ki. un pour cent ci ñi war a ci ñi nekk ci kayitu wote bi. Hmm. kon téeméeri candidat rek nga mën a am. Hmm. te par réew mi am na lu mat ñetti téeméeri parti ñu wax ne kon daaniki da ngay tere lu mat ñaari téeméeri nit ñu mën a nekk candidat. Hmm. te loolu rupture la. moo tax ñu ne nañu ko changé ba nga xam ne euh, képp koo xam ne kii euh, wóolu nga sa ba sa bopp ba bëgg a bokk euh, mu wóor la ne da nga am possibilité bokk te bu fekkoon ne am nga parrainage bi. Euh, lim bi nga soxla da nga ko fi da ko fi fekk euh, loolu moom la wax wax na itam bu dul loolu mu en tous les cas parrainage moom il faut ñu ñu ñu bu mënta dindi loolu. il faut ñu soppi ko. Hmm. ñu wax itam ne parrainage moom dafa am ci réew yu bëree bëri mais ni particularité Sénégal mooy Sénégal la ñuy def parrainage buñ la dàqee coow li nag pour parce que yow doo xam ci fan lañ sukkandiku pour dàq la. ndax nattukaay bi nga xam ne moom la ñuy natte pour mën laa wax ne baax na wala baaxul nattukaay boobu xamoo lu ci nekk. Mm-hmm. loolu moom mooy jafe-jafe yi mais réew yi nga xam ne ñoom ñu ngi def parrainage bari na lool te réew yooyu kenn waxu leen ne dindi leen seen parrainage. Mm-hmm. parce que la tax waxul leen ne dindi leen seen parrainage nañ koy doxale dafa dëppoo ak charte yi nga xam ne ci àddina bi yëpp nit ñi nangu nañ ne loolu lu jaadu la. Mm-hmm. ndax tolluwaay réew mi waxtaanee ngeen ko ci dialogue bi tension politique bi euh, am manifestation yeeg li ci xew yëpp. waaw loolu bokk na ci tomb yi ñu yi ñu war a waxtaane ah, euh, xool naka la ñu mën a def itam ba ba dal am ci réew mi naka la ñu def ba kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi euh, nit ñi mën leen a wekk te ñu doxal respecté ak ak yelleefu doomu aadama yi loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne dinañ ko waxtaane bu soobee yàlla ah, lu tax waxtaaneegu leen ka ndax yéen da ngeen a ubbi dialogue bi tey ëllëg si réew mi yëngu loola kay waroon a jiitu ci waxtaan yi am non non non non xam nga en fait xam yow da ngaa liggéey hmm. yaa ngi sa place di liggéey. waaw boo bu midi jotee wala une wala deux heures boo bëggoon a dem fenn da nga da nga fay dem. Mhm. bu dëgg. Mhm. en réalité loolu ay incident yoon la yoo xam ne dañoo amoon mais euh, terewul nun suñu agenda nag. Euh, dañ koy tëral. Mhm. ci li nga xamee ne noonu la ñu jàpp Euh, point yi noonu la ñu war a toftalante. Hmm. lan mooy seen xalaat ci mbiram euh, éligibilité ñenn ñi maanaam euh, mën a bokk ci élection yi ku mel ni Khalifa Sall Karim Wade am jafe-jafe ay jafe-jafe yu ni mel itam di xeeñ pour Ousmane Sonko lan ngeen di proposé ci wàllu woowu ndax luwaa yi moo tënk ñenn ñi ba xañ leen seen mën a falu. waaw xam nga xam nga ñi nga xam ne yoon def leen tere ñu bokk ci élection. Euh, deux mille dix wala ba bien avant loolu sax ñu ngi ŋàññi Sénégal depuis mille neuf cent quatre vingt sept te mille neuf cent quatre vingt sept laa la wax. Hmm. parce que disposition yooyu ñu ngi ci code électoral bi bien avant mille neuf cent quatre vingt sept n'est-ce pas hmm. mais. Euh, li ci nekk rek mooy daa de di ay ay acteurs politiques peut-être daawul daal ci ay acteurs politique moo tax nit ñi xamuñu ko woon hmm. mais loolu yàgg na fi léegi nag mais gis nga disposition yooyu li ci nekk. Hmm. mooy boobu ak léegi communauté internationale ñu ngi wax Sénégal ne nii ngeen ko tëjee moom moo moo moo moo jaaduwul dëppoo ak norme internationale yi parce que. par exemple dañ lay tëj bu ñu la dee tëj nañ la cinq ans dañ naan sa giiru dund dootoo mën a nekk ci liste électorale sa giiru dund dootoo ne mën a nekk candidat loolu giiru dund boobu la ñu wax ne moom moo jaaduwul. Hmm. nit ki boo ko condamné ba pare dafa am diir boo xam ne xëy na war na koo mën a toog mais bu jàllee dafa war a duggaat ci société yi mel nii ñëpp. Mm. loolu mooy li nga xam ne yàgg nañuy wax nun ne disposition article L vingt neuf ak L trente bi nga xam ne moom mooy gàllankooru euh, ñooñu ngay wax il faut que ñu bindewaat ko noo xam ne dañuy wax ne ku ñu tëj par exemple juróomi at nangami kii ngay toog bu jeexee nga dugaat ci ci ci processus bi. Mm. loola bu fekkee ne def nañ ko ñoom bañ leen tëjee ak léegi euh, modification yi. day daal di tax ñoom ñu ñu ñu mën a bokk. Hmm. alors euh, lu aju ci dialogue bi dégg nañu itam ne dañoo am jafe-jafe ngir am président commission politique ndax loola am na lu muy euh, yàq ci liggéey bi. Euh, déedéet amul lenn lu mu yàq ndax xam nga ñi nga xam ne ñoo seq waxtaan bi moom. yow moomu di wax sax boo ñëwoon jiite xëy na nga ñàkk mën a xam fooy teg sa tànk waaye boo xamee fooy teg sa te mën a jiite ab daje. Hmm. rek mën nga mën ngaa jiite commission ndax kenn du la laaj sa xalaat doo doo jox doo jël benn dogal hmm. nit ñi dañuy waxtaane tomb sàngam la ñuy wax rek la ñuy waxtaane ngay séddale kàddu yi nit ñi di wax bu ñu paree nga tënk ne bi ci waxtaan bi daal déggoo nañ ci lii wala déggoowuñ ci lii. Hmm. loolu xam nga ne lu lu lu lu lu. la hmm. moo tax bi nga xamee ne amaguñu euh, koo koo xam ne déggoo nañ ci moo déggoo nañ ci. terewul euh, liggéey baa ngi dox ni mu waree. yaakaaroon ne ñu doon wax dialogue bi di la ak négociation la moo tax gars yi ragal a ñëw euh, balaa seen tur di ci taq est-ce que du loolaa tax ngeen am jafe-jafe am président autorité yi ñu ciblé ñoom passé nañu ay ay position politicienne di leen influencer ñooñu ay euh, ay kilifa lañ yoo xam ne xam nañu ne yenn propagande yi wala campagne de désinformation ak yooyu mënul am impact ci seen ci seen posture hmm. républicaine hmm. jërëjëf euh, Déthié fay ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM fàttali jërëjëf maa ngi leen di sant yow yaay coordonnateur pôle des non alignés jërëjëf ñu ngi lay